dafa wàññi woon sama activité yi yu bari sama habitude yu ma amoon yëpp presque dama ko mujjee wàññi ndax déjà sama suñu waa kër ay mag nañ te mënu ma woon jël risque bi di génn si mbedd bi di ko attraper delluwaat sama ko di leen ko wàll. bu ñu reprendaatee école dafa amoon ñoo xam ne dañoo amoon grippe c'est par la suite je pense que fan nañ ma ko wàlle man tamit ma am grippe. ci la santé ni que amatuma goût amatuma odorat Donc naa une semaine je pense que aw ma ko ndax dama wàccoon benn jour rek tëdd feebar carrément sama yaram bañ ma amoon fièvre parce que suñu kër ay mag fa nekk te on sait jamais wóorul déjà sama yaay moom dafa drépano léegi ci laa demee euh, Gaspard Camara fa laa faire test Covid bi après nous avons 24 heures ou 48 heures pour tester. Le vaccin ne veut pas dire ni que doo pas attraper Covid Je moo tax ma respecter mesures barrières de suivre à la lettre pour aar seen nous et seen waa